بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيف يو مغي كليف يو تدي وكر شيخ الخديم ما نجي نيولين نيو بغن السل دي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كن كنك نيكو جوخ واتي وايام اب دايوم غير الاسلام واي غير الشيخ الخديم دي رافيت لو جتاي بي جتاي لبو ام صلو جتاي لا بو خاميني جتاي منوكو گنا فيتي كاو اي جوليت nekk ci am réew réew moo xamee ne réewum jullit la nee nan ñi ëpp ci ñi fiy dund ñoom ñépp ay jullit lañ soo ko dee xayma dana mat juróom-ñeent fukk ak juróom wala lu ko ëpp te itam boo seetloo daanaka mënuñoo doxal loo xamee ni dëgg-dëgg lislaam da cay gis boppam bu baax a baax a baax lool yi nag muy lu mata taxawat setlu muy lu mata bàyyi xel ba xamna naa ma waral jotaay bu melni bilé euh dama ñëw nak ngir dëggalal leen ngir firndel sen jotaay sen taxaway sen nekkine ci surtout suñu wayjur yi suñu kilifa yi ne li ñu nekk mooy li nga xamé ni moy li am solo te mooy li yelloog Touba mooy li nga xamee ni sëriñ Sidi Muxtar mbakk mi ngi ànd ak yéen ci lool loolu moom na ci xel dal bu baax a baax sëriñ sii Sidi Muxtar li ko ñor mooy diine li ko ñor mooy lislaam li ko ñor mooy Cheikhul Khadim képp koo xamee ni jóg na di dox jóg na di taxaw taxawaay bu mel ni bii ngeen taxaw loolee mi ci ànd ak yéen ci lépp wax naa ko sëriñ Hamza. wax naa ko ñeneen itam ah li ñu war ci taxawaay nañ ko taxaw nañ ci dem incha allah sëriñ Sidi Muxtaar itam man ah, ah, lu leer laay wax mi ngi ànd ak ñun ci lépp mi ngi ànd ak ñun ci lépp loo xamee ni luy sagal diine ji la waaye luy sagal tuubaa la waaye lépp loo xamee ni war may tuubaa la ak war may doomu aadama surtout ab julit sëriñ Sidi Muxtaar Mbàkke mi ngi mi ngi ànd ak ñun ci loolu kon loolu na leer li ma ciy dolli mooy jëf yi yëpp nga xamee ni mu mel ni ci liggéeyu tubaab bi la Serigne Moustapha Diop junj na ci lu am solo loolu yi tubaab yi bañ ko dooree yàgg na waaye am na benn point boo xamee ni ah, dafa historique mooy euh, euh, euh, ci après mu xaadara Yalta. dafa am ñaari euh, candidat ñaari groupe moo xam euh, bi Union la walla moo xam bii les Américains la ku ne am benn fànn boo jaar ngir gàttal ndax lu bari sa sëñ Moussa junj na ko waaye biñ demee ba nga xamee ne àgg na ci mille euh, mille neuf cent quatre-vingt-neuf donc ci la Gorbatchev yegsi mais bi mu yegsee mais dafa def insihaat maanaam ci rythme walla politique bi nga xamee ni. ci la nekkoon mais dal di baye americain yi pour ñom ñu dox nak ah fofu la saytara al alam ah bi nisbata lil americain donc fofu lu joge nak dal di ñëw tak tànk ci lépp legi ñom ñu japon ne ben aduun la dut mo taxu seen kanam mais bobu fagaagal nañ ko mais ñu ni kan mo taxaw legi mais l'islam mo ñëw parce que hadara bi nga xamé ni mom lay imposer mais bokkut ak hadara bi nga xamé ni moy hadara al gharb donc ñu leen taxaw nag ñu bëree bari ah taxaw pour nag bëgg a fagagal diine waaye pour fagagal l'islam mais des na ci xool benn conseiller boo xam ne américain la ci Bush mi ngi tudd ah Samuel Huntington mais bi mu waxee mi ngi def benn téere bu tudd ah bu tudd azma mais foofu itam dafa wax ni non ah amuñu benn pexe mbaa benn yoon boo xamee ni war nañ faa mën a jaar pour dund avec l'islam mais l'islam dañoo xoj mais l'islam dafa metti mais l'islam daal il faut ñu éliminer ko mais lii rek mooy li nga xamee ni ñun ci la ñu soog a buñ ci jaarut ñun li ñu proposé donc loolu du du mën a nekk ah naka noonu itam am na benn euh, président américain boo xamee ni nga ngi tudd Richard Nixon mais ab ibaadiya ab ah, ah, ah, dafa ñëw teg ma ay surut yoo xamee ni jëmmi laïcité maanaam ci lay dox mu teg ñetti point benn bi mu ni jaxlu diine amudiyan maanaam diine ak euh, jëmm ji nga xamee ni moo jël diineem ak ka mu gëm mais nu ko neex la koy pratique ak ku mën a doon itam ku ku mën a doon rek mën na ko jëlee na ko bëggee mais xuriya totale bi itam euh, euh, liberté totale moom it dafay daal di imposé wu nga xam ne nit ki nu ko neex mu tànn diineem waaye itam nu ko neex mu tatbiqe ko donc loolu nag bu fekkee am na ci waxtu gàtt wi bu loolu amee donc loolu nag lu mat taxaw seetlu la ñii tubaab yi jàngal leen yar leen def ci ñoom lépp ah ba itam euh, euh, fi may wax ak yow dañ leen a xoj ba ñoom dañuy àggale ñoom ñooy làmmiñ ñoom ñooy bët mais ñoom ñooy bët yi nga xam ne ni ñooy tànk yi di tànk américain yi nga xam ne ñoom lépp lu ñu bëgg jàllale facilement dañuy daal di ñëw jàllale ko donc Sénégal dëkk bu toll ni Sénégal ah boo xoolee juri quatre-vingt-quinze pour cent ñu dem naan dañ koy def pays laïcité donc koku luñ wara taxaw la mais koku luñ wara dénoncer la ndax cheikhul khadim liko ko sonu cheikhul khadim liko ko jóg deng ko lil nawaitu ma maa sunnatahu al xarra wa inni ahmadu kon nak ñun ana ñun ci fofa ana ñun ak cheikhul khadim mais taxaway bu wér nañ jaay suñ lépp jaay suñ lépp jënde ko lan diine mais bàyyi aduna ku taram aduna moy lan aduna amul solo aduna alxuraan nee na famshu fi manakibiha mais tey leen waaye wiiri wiiri nag wa ilayhi nushur kon nag ku dund ba déwén lekk ba déwén li fi nekk mooy nañu góorgóorlu bu baax a baax taxawaat ci lii ñuy xeex nañ ko taxaw mais dem nañ ba bàyyi euh, comme gouvernement bi mais dugg nañ suñu diine mais dugg nañ suñu njàng ñu koy pasar pasar di ko xaaj benn nam leen neexee mais kooku lu mat a bàyyi xel la mais kooku lu mat a taxawaat ci boppu point pour mën a taxawaat xeexaat loolu donc loolu faaw ñu bàyyi ji xel léegi lay solution nag mooy dañ delluwaat Seexul Xadiim moom mi nga xamee ni ci am njàngaleem te ay ci ay taw jiihaatam non kooku rek jàpp naa ni moom moo ñu mën a sauver pour ñu mën a dem kon nag maa ngi jégalu ci ga euh, ci waxtu wi gàtt wi ak kàddu yi ma doon jégalu euh, euh, doon wax lépp lu ci ab jamaj maa ngi koy jégalu ngir jëm Cheikhul Khadim di siyaarewaat samay kilifa di siyaar mboole mboole mépp di ñaan seen jataay bii yàlla na sax seen jotaay bi yàlla na yàgg li ngeen ci soxla ak li ngeen fi ngeen bëgg a yegg yàlla na leen yàlla yeggale foofu ci barkeb Cheikhul Khadim ñoo ngi jéglu baax a al waaxiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wa aleykum assalaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu